waaw asalaamaaleykum mbokku internautes yu Diego parle foot nuyu naa leen ziar leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci chaîne bi dañ lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal da nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di like di commenter ak a partager loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax tey dañuy waxtaanee Cher Ndour probable arrivée ci équipe nationale bu Sénégal ndax moom pare na ngir ñëw défendre couleur équipe nationale bu Sénégal loolu ngeen di gis mais vidéo bi du doon lu gudd parce que gis ngeen yi. concept de bees de génnee mooy vidéo boo du presque trente une minute minutes donc wala deux minutes loolu concept boobu neex na la ñëwal ci commentaire nga wax seen xalaat ak gis-gis pour ñu a améliorer wu. donc comme ni ko c'est un italo-sénégalais euh, papam mooy sénégalais loolu moom ñëpp xam ko un jour très talentueux euh, actuellement je pense que ne 18 ans la et que euh, dans son âge actuellement li mu réalisé c'est exceptionnel vraiment maturité bi mu dégagé ci terrain bi loolu rek daf ñooy yëm xam nañ Sané Ndour Kane c'est un joueur très technique boo xamante ne milieu offensif la bu ñëwee ci équipe nationale Sénégal mën nañoo apporter lu baree bari et que loolu noonu peut-être ñu ñëw analyser leen wax leen nan la Sénégal analyser palette technique palette bu yaatu bi nga xamante ne Assane les am na ko loolu nag les leen ci wax seen xalaat ngeen ñu defal defal leen ci vidéo ñëw leen nga wax ngeen wax ñu seen xalaat ak seen gis en tout cas pare na ngir ñëw défendre couleur équipe nationale bu Sénégal wax na ko loolu papa moom moo ko wax parce que moom dafa bëgg ñëw commencer ci équipe A bi mais pas petite catégorie moom loolu la waxoon en tout cas ñoo ngi xaar ba xam Aliou Cissé dana woo ci mois de juin bi jëm.